daal di dem ci jëmm ji tedd jooju di soxna may mun a bàkke di dund xadim ñuy siyaare njabootam gi yépp Bari Mbàkke ak Serigne Mour Mahfouz Mbàkke di leen ñaanal suñu borom sàmm leen bañ mën a yëggale lépp lu ñu yéene liggéeyal seen wàllu tedd woowu ñuy ànd ak seen doom yu Ahad Mbàkke moom Serigne Cheikh Mbacke génne xam na ci liggéey yi nga xam ne mu mat ay bés ñuy nii bés bu set ñuy organiser ay waxtaan yu am solo ay ne nii yu am solo la ci diggante kër gële ca jumaa ja ak ci fii ci asner ak ci kër Serigne Mourou Mahfouz gële ca Daaru Manaan jataayu tey nii nag day jataay boo xam ne bu am solo la boo xam ne lépp rek soxna su tedd si di sayyidatuna soxna Maymuna radiyallahu ta'ala anha ñu war cee waxtaanee lépp lu aju ci dundam ay jaar-jaaram li nga xam ne investir na ko ci fii ci àdduna insha allahu taala danañ ci ànd ak ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñu jaxasoo woon nañ si yàgg nañoo wax it ay yàgg nañoo organiser ay waxtaan yoo xam ne nii di waxtaan laylatul xadar di waxtaan ci soxna sos bi ci jiitu danañ ci dalal bu baax insha allah Serigne Moustapha Diatara ñii ci sama wet danañ ko jox kàddu gi mu mën a andil ñu lenn ci jaar-jaar yi soxna si tedd sos di soxna may mun a su noppee insha allah taala danañ ci tàllal Serigne Diadji Tall mooy ginnaaw Serigne Moustapha noppee kon mbokk yi lii mooy programme bu tey bi ak Serigne Cheikh bi nga xam ne moo yor liggéey bi di jawriñ ji di leen di di leen ndokkeel ci bis yu tedd yu mag yi rawatina bis bi ñu jëm mooy bisu laylatul xadr di laylatul xadr bis boo xam ne fu ñu ko tuddee rek xel yëpp nii xel yëpp di demee ci shahru ramadan ni la xel yëpp di demaatee ci soxna Maymuna muy bis bu màgg ñu bis bu tedd ci lislaam bis bu rëy ndax yàlla waxal boppam ne màgg laylatul xadr guddi gu mag guddi gu am daraja guddi gu rëy fa yàlla borom xam-xam yi wax ci yu bare bare bare ci guddi gi ak i ngëneelam yoo xam ne lenn luñ ci wax rek dafa doyoon sëkk ndax dañ ne li tax ñu tuddee ko laylatul xadr mooy alquran dafa nekk azimul xadr jibril mi nga xam ne alayhi salaam ñu wàcc ci moom mu jaar ci moom door ñëw ci ki taxaw ñu yónni ko ci moom muy moom itam mag azimul qadr wa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa moom it di ku mag darajaam di lu mag fa yàlla daraja yooyu mag nag benn bu ci nekk doyoon ñoom ñëpp dajewaat ci muy yàlla tuddee ko laylatul qadr waaye am na feneen foo xam ne layla mubaaraka la ko tuddee inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka kon yàlla melal na ko ci ñaari melo mooy guddi gu am solo bu rëy la ci yàlla waaye guddi gu barkeel la ndax mooy guddi gi nga xam ne fiiha yufraxu kullu amrin xakim ndax suñu borom subhanahu xam ngeen ne lépp lu muy def daf ko programme lu jiitu doomu adama yi di am ci kaw suuf fekk na mu programme lépp waaye nag ci guddi gi di laylatul xadr ci la wàcce programme bi jox ko malaaka yi doomu aadama bu nekk ñaata at lay am lu muy am ci wërsëg at mi lépp loo xam ne mooy programme nit rek ci guddi googu la ko sunu borom subhaanahu wa di wàcce ci lawul mahfuz jox ko doomu aadama euh, malaaka yi ñu war koo exécuté ci doomu aadama buy dund ci kaw suuf sa wërsëg sa dund say at loo fi war a nekkee ba at mi de déwén ci biir guddi googu la ko sunu borom subhaanahu di amal kon loolu di lu am solo lu rëy ndax wàcc di gi alquran ci biir ramadan waaye tànn laylatul xadr wàcc ko ci ah, tax na ba moo tax bu digg rëy ba yàlla ne xayrun min alfi shahr moo gën junni guddi yu dul moom yoo xam ne at ma laylatul xadr amu ci kon loolu di dund juróom-ñaar fukki at ak nangam yoo xam ne ci genn guddi gi mën nga ko ci am loolu lu am solo lu réeréy la occasion bu mag la mawsimun min mawasimil xayri wal baraka yi nga xam ne jullit boo xam ne yàlla fekkeloo na la ko nga am sens nga fekk ko war ngaa fexe ba profité ci bu baax ndax borom xam-xam yi dañuy wax ne laylatul xadr bu ñëwee yàlla day mobiliser malaaka yépp تنزل الملائكة والروح فيها du ngeen gis mu wax sidna jibril mooy al ruux mooy ki nga xam ne mooy seen kilifa jiite leen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk daf leen di jox ay drapeau yoo xam ne wax nañ ne dinañ dem ba màkk ñu seet ñeenti barab ci biir kaaba gi fenn fu ne ñu samp fa benn drapeau dinañ dem ba ci barabu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu samp fa benn drapeau dem ba tuuri Sina ñu samp fa beneen loolu xadis bu wér la boo xamante ne noonu lañ ko wax bu ñu sampee drapeau yooyu ba noppi nag euh, ñuy tasaaroo nag di wër amul benn kër wala benn néeg wala même ci bato yi dox ci kaw géej gi sax danañ fa dem danañ fa dem di fa sàbbaal di jéggalul jullit yi di leen jéggalul seen borom ngir yàlla jégal leen bakkaar yi nga xam ne moo dox seen diggante ak seen borom lépp ci dara ji génn guddi gi salaamun hiya xatta loolu la def ba fajar guddi gi it yàlla day ubbi asamaan si tàmbalee ci bi jant bi sooyee ba ba bi di fekk lépp yàlla day ubbi asamaan ubbi asamaan nag lu muy firi mooy suñu borom subhaanahu wa day nangu jëf yi nga xamante ne moom lay jëf ci suuf muy egg directement ci moom amit yërmande yuy bàyyi ko ci moom jëm siwaat ci nit ñi yoo xam ne du am intermédiaire day egg siwaat ci ñoom euh, day taw ci ñoom taw yërmande taw njëgal taw boo xamante ne lépp ay njëriñ lay doon ci doomu aadama yi kon guddi gu am solo la guddi gu am solo la goo xam ne ab julit bu ko fekkee war nga cee profité taxoon na bu masaan egsi soxna aïcha radiallahu anha bu masaan toog ak yonent bi ba ngëneel yi yëpp mu xam ne mi ngi dafa ñu ci biir guddi gi mu ne ko waaw ya rasulallah guddi gi bu ñëwee man lan laa ci ñaan tànnal ma ci ñaan goo xam ne bu dikkee moom laay wax ñoom de xam ngeen ne Aysa borom xam-xam la woon bu mag boo xam ne yonent bi li mu doon doon jigéen yëpp yonent bi ko tànnoon ba wax ne xudu nisfa diinikum min hadihi xumayra jigéen su xees su gàtt si fees na dell ak xam-xam yéen ñëpp seen ngeen wàllu diine mën na leen koo jàngal ñu gis foofu rek lislaam ni mu fonkee jigéen ak daraja bi nga xam ne moom nga ko jox nga xamne soxna soosu dafa laajoon yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko lan la ci ñaan mu ne ko bu egsee da ngay wax allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anna loolu la wax yonent bi alayhi salatu wassalam loolu la wax soxna aisha ne ko li ñuy ñaan ci guddi gi ñaan googu mooy gi ci gën ak loo ci mën a teg nag nga teg ko ci waaye guddi googu loolu lañ ci digle ko ko ñaan ci yërmande yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne moom ci boppam moo sàkku ci yàlla guddi ndax yàlla def ko won xeet yëpp bi mu ko gisee mu xeet wu nañu woon ko euh, ñaata at la nit ñiy dund maximum la ëpp ci li dund ñaata at lay doon mu gis dundu xeet yooyu yëpp mu ñu won ko dund aw xeetam waaye mu néew lool seen nit ni ñuy dund ci àdduna dafay néew ëpp mu xam ne gudd fan dafa am solo ci nit te ndax ci ngay mën a fàggoo ci ngay mën a jégguloo ci ngay mën a jaamu yàlla mu ñaan yàlla nag ne ko ah man de sama xeet wi seen fan yi ak seen at yi gàtt na lool dama bëgg daal nga defal leen occasion boo xam ne ñoom bu dikkee danañ ci mën a am loo xam ne donte seenu fan guddut waaye dana nekk loo xam ne danañ mën a dab xeet yi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te gënoon leen gudd fan loolu moo tax yàlla may ko guddi googu ne ko xayrun min alfi ñi daan dund juróom-ñaar fukki at ak ndàngam wala ñu di ko ëpp ñoom genn guddi gi lañ ci daan jaamu yàlla benn guddi gi ñoom sa xeet yi ñoom mën nañu ci am kon mu nekk guddi goo xam ne am na solo lool koo xam ne yal yàlla may ba da ci ay barakaat ay raxamaat lépp yàlla may na ko loolu itam ci darajey borom bis bi ak ci darajey guddi gi ci darajey quraan e soxna si nag daanaka lu ñuy wax ci moom waxaat waxaat rek la ndax dama leen di wax ne nit mënees na koo xam ci yett yëf nit mënees na koo xam ci mbindam nit bu bindee rek boo xoolee mbind mi même boo ko di nga xam kii fu xelam toll nit mën na koo mënees na koo xam ci ndawam ndaw li muy yónni ci yow mënees na cee xam nit ki fan la dimension xelam toll waaye nit it mënees na koo xam ci ixtiyaaram xusnul ixtiyaar ni muy tànnee dara mëne na cee xamee xelum nit ak pas-pasu nit ak dimension soxna si nag boo xoolee ak tànnam rek ci ngay xamee kii mooy kan ndax ñëpp tànn nañ waaye xool leen lim tànn lu rëy lim tànn lu am solo lim tànn xam ne boole na lépp maanaam yi ñuy tànn yépp yàlla boole na ko ci tànnam googu nga xam ne mooy laylatul xadr mooy guddi alxuraan guddi goo xam ne yàlla ne li may def ci at lépp ci guddi googu laa koy def guddi goo xam ne yàlla dafay wàcc malaaka yi def leen ay délégation ñuy wër kër gu nañu dugg fa mbooloo mu nañu dugg fa ngir lan jéggulil leen yàlla loolu lépp nekk ci biir guddi gi moom mu seet guddi yëpp seet bis yëpp bis boobu gënal ko ci mu tànn kon soxna si ci tànnam gi képp xamee nañ ci mooy kan xamee nañ ci itam dimension ci digganteem ak boroomam waaye xame nañ ci dimension ci digganteem ak doomu aadama yi ak yërmande ji nga xam ne moom laa am ci ñoom xamee nañ ci itam ne xam na bëggu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu xamoon na ak bëggam ci Qur'an xamoon na ak bëggam ci shahru Ramadan xamoon na ak yërmande ci doomu aadama yi yett yi yëpp benn bu ci ne soxna si xàmmee na ko ba moo tax mu tànn guddi gi loolu it mënees na cee xam soxna si bu baax a baax ndax quraan dafa nekk loo xam ne li tax yàlla réel guddi gi ba ne inna anzalnaahu fii laylatil qadr guddi googu kat ci laa ko wàcc ci asamaan si muy wàcc nag ndànk-ndànk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xasabal xawaadis xasabal asbaabi wal xawaadis ba alquran mat ba yàlla wàcce ko ci arafaat ne ko al yawma akmaltu diinakum wa atmamtu aleykum ni'mati loolu lépp mi ngi tàmbalee ci guddi gi tey ji kon yonent bi na guddi gi fonkoon na xam ngeen ni sëriñ bi moom lislaam rek moo ko ñoroon sëriñ Tuubaa leneen ñoru ko woon ci kaw suuf lu dul lislaam leneen lu la waay mën a wax xelam boppam la xalaatu boppam la waaye moom li muy bind ñu di ko gis xam ko mooy benn tool a safoon ci tool yi mooy lislaam lislaam la doon liggéeyal saa su lislaam moo doonoon ab toolam danaan wax ne bustaani kitaabullah man day tool yi ngeen di wut ku mu neex wutal tool waaye man sama tool benn la mooy téere yàlla bii mooy xoraan waaw moom mooy li nga xam ne ku ma seen xëy seen lët yi maa ngi jàpp ne yaa ngi ci sama biiru tool di bay te loo ca def rek dinaa ko yëg kon moom alxuraan moo doonoon lépp kon soxna si bu ñu xoolee dimension ci côté bu nekk bu ngeen xoolee li ci jiitu mooy alxuraan jooju soxna si ku fonkoon alxuraan eh man de yàlla may na ma sens ba ñu tàmbalee leen du xadar ba fii may wax ak yow ah maa ngi ci jonjoo ak moom maa ngi fàttaliku sëñ Modou Mahfouz mi ngi may dégg dama daan umra ji ay li tàmbalee 1980 ba jamono yu bari at mu jot dama daan dem umra waaye fu ñu mës dem di dem umra dañuy ñëw tàggu si ko ak sëñ Modou mii waaye bu ñuy dem ak sëñ jiili moom sëñ Fallou yàlla na ko yàlla dolli leer comme fonkoon la eh, bu ñu ñëwee mu nañu ah yéen de xam laylatul xadri ji foofu la leen di fekk waaye bu ngeen demee foofa de ngeen ma fa defal bu ngeen ma demee foofa seen jili mii moo fay sama jëmm yow mii lañ fa war wax yow laa ko wax la bu nu demee ba umra ba noppi dellusiwaat jidda booba sunu xarit sunu sëriñ bu baax di son excellence sëriñ Abdoul Ahad moo moom sëriñ Fall fa nekkoon yooyu jamono consul général bu ñu dikkee ci biir consulat bi li ñuy defee laylatul xadr e eh, sëñ ji di toogal fa soxna si ñu nit ñu wax fa la nga xam ne moom la yàlla dogal ñu mën koo wax e daayira yi fa nekk bokk yi fa nekk ñoom ñëpp teew bu ñu xëyee ba ñu def laylatul xadr ba noppi ñu ngi dem madinatu munawara ci fajar waa ah, loola nag bu ñu dikkee nettaliku ko xol bi day sedd daan toog bu yàgg mu ne ah waaw waaw moom de xanaa ab bisde de bis de am na fu ne waaye bis boo xam ne dem na ba egg ci ku baax kookee de yaakaar naa bis yëpp di amul ñëpp de amuñu ko ma ne waaw ah, mbak yow rek yaa kenn amul bisu laylatul bu ñuy defee ca xaramayni sharifayn mbak yow rek yaa ko am waaw moo taxit it ah, nit ñi fa nekk de xam nañ ni ah sëñ mi nga xam ne de moo la meññ mooy ki nga xamante ne yàlla moo ko fayee loolu jaarale ko ci yow kon soxna si ku fonkoon alxuraan ku fonkoon waa alquran ahlul quran ñun de xam nañ ci dara ñun sëñ daara yi xam nañ soxna si fan la tegoon alquran fan la tegoon ahlul quran amul benn daara bu nekk ci dëkk bi fii ci daara cosaan yi nga xam ne xam nañ leen ci Tuuba nga xam ne daara yu fi yàgg la xam nañ leen soxna si waxtu wu nekk listam la yor boo xam ne daara yooyu yépp benn bu ci nekk dafa am lum la warlul loo xam ne at mu ne waxtu bu nekk rawatina bu laylatul xadar dikkee ñu ñëpp kenn ku ci nekk teraangaam dana la fekk si fa nga nekk loolu soxna si bokkoon na ci ñii encouragé alquran bokkoon na ñii encouragé njàngum alquran bokkoon na ci ñi nga xam ne itam ñoo doon encouragé tey xale yi nga xamante ne ñooy jàng alquran di ko mokkal te loolu gëraloon Sëñ Tuubaa lu ne amutoon lu mu yemale ak moom da daan wax ne bu ma gisee gone bu mokkal alquran ak gone gu mokkalul alxuraan ba ma leen di gënale du ma ko tey du ma ko mën a tey ñoom ñaar dama leen di xool ni yemale leen ñu yem ci sama kanam nii rek waaye bu ma xoolee ki ci man alxuraan ak ki ko mënul ba ma leen di gënale du ma ko tey ba may defal kee ci baatin wala di ko defal ci say loo xam ne sax duma ko tey ah, te yéene naa ko ci waaye kee xuraan bi moo tax noonu la fokkee woon alxuraan noonu la ko bëggee woon itam alxuraan la jàppoon muy moo taxit soxna si itam teral teral na waa alxuraan loolu defal na leen lu ne lépp lu daaray kaamil jii ci biir jumaa ji ñoom xam nañ ci dara waaye daaray kaamil yi nekk njaareem mbaa ñu nekk poroxaat mbaa ñu nekk ci biir dëkk bi mbaa ñi fi jàngale alxuraan te fi cosaan ñoom xam nañu teraa ngay soxna si seen diggante ak alxuraan kon soxna si ku ku ku fonkoon alxuraan waaye soxna si dafa fonkoon ak jaamu yàlla nit la jëmm la joo xam ne saa soo ko xoolee rek man dama leen wax ne dañuy wax ne cheikhul murabbi sëñ Tuubaa dañu jàngale cheikhul murabbi defe naa sëñ Maxtaar Binta Lo moo ko doon laaj ne ko dama bëgg xàmmee ab sëriñ nu muy mel ndax nit mën naa am sëriñ ba noppi wutaat beneen sëriñ bu gisee ku ko gënal ndax mën naa nekk sëñ bi ci nit jàngale gi mën a jàngale mu ne ko ah, sëñ bi daawul de daawul def rek boo ko waxee rek laaj ko rek mu tontu la day seet laaj bi moom li ci gën mu wax la waaye noonu la jàngalekat di mel ndax élève léeg-léeg mu laaj la loo xam ne yow ci sa bopp da seet la gën ci moom nga tontu sëñ bi noonu la doon def waaye ba mu koy wax cheikhul murabbi cheikhul taalim cheikhul tarbiya ba egsi ci cheikhul tarxiya la mu ko wax man dama koo gis ci soxna si ndax day gudd wax na ko cheikhul tarbiya nu muy وحنا كو شيخو آه، ترخي نوي مال وحنا كو شيخو التعليم نوي مال نينا كو شيخو التعليم نوي مال موي داي جانغ نيت كو جانغول مونتا جانغال نيت كو خامول مونول خامول كين جانغالي جيكر غناو بو جانغي با نوبي داي ام لسان فصيح بحيث لا يؤول كلامه داي دون نيت كو خامني بو واخه ليمي واخ ني فاي دغلو اك دونغ يي كوي ولا الين يي كوي buñ fa nek nan li la ci djiblu wala la la ci djiblu bu la bu le bu waxee ba nopi rek dina leer ci ñëpp muy al lisan al fasih bi haythu la awalu karama kenn du nek wax ji fi la jëm wala fi fi la jëm benen bi ci dess day am adala day nek ku man ko xamne dara ji du ko jaral mu wax lu mu xamul boo egsee ci lu mu xamul bok ko laajoon ci digg aduna fépp toog it boo ko xamul daf lay wax ne la adri xawmu du ci rus du ci am benn rus loolu mooy maandu si ndax nit doomu aadama du xam lépp doomu aadama bu xam lépp aalimu kulli fannin dégg ngeen olof a koy wax waaye amut yàlla rek yàlla rek xam lépp waaye benn doomu aadama boo xam ne xam ne lépp amul si kaw suuf amul ci àdduna ba mu dañ ko xam lépp loolu waxin la rek waaye soxna loolu ko beneen bi ci des mooy euh, cheikhu tarbiya mu ne ko nag seexu tarbiya moom day xam xamle cheikhu taalim xam ba noppi boole ko xàmmee nit ñi ñëw fi moom ni médecin di xàmmee malade yi jikk ci moom muy xàmmee kii bopp mooy metti kii biir mooy metti ku ne ordonnance ba mu la war a bindal xam na ko cheikhu tarbiya bi noonu la war a mel kii boppam mën naa metti kii boppam di metti te ordonnance ba ñu leen di bindal du bokk parce la sabab bopp bay metti bokkul la sabab biir buy metti bokkul ku ci ne dafa am cause bu tax lala dal mu dal la te loolu médecin da ko war a xam lolu cheikh bi tarbiya moom da koy xamé ndax dañu andalé ay fièvre ñom maladie yi nga xamné hissiya la ñomit dañu andalé amrad qalbiya yo xamné ci xol lay de moy ki ñaan muy bëgg aduna muy nangam muy nang yëpp ay fièvre ay fièvre la yo xamné day dal nit yooyu nag cheikhu tarbiya liggéeyam moy fexe ba dindi ko ko dindi ko moom set wéj nonu mu koy xamé nonu moy tax mu mëna xam nit ñi buñ diké mu mën leen a jëriñ cheikhu tarqiya nag mooy koo xam ne gis rek jëmu ji boo ko gisee nii rek fi saasi du wax ak yow du def ak yow dara waaye fi saasi am na lu mën a def ci yow loo xam ne yow dootu jóg ci yow mukk mën nga koo xool rek def mu jëriñ loolu nag moo bari fi mu ne léegi waaye cheikhu tarbiya bari waaye cheikhu tarxiya moom fi ne nii bari na am na ay benn benn am na fi ba léegi ñu ngi ño xamné bax ga nek ci ñom ruhani ba nek ci ñom ikhlas bi nek ci ñom bo xolé seen jëm rek yàlla mo la koy yëgal parce que yàlla dafa def ci doom adama mu yëg lu bax di yëg lu bon fu mu nek dana ko xam fu dana ko mo tax nit ñu bax ñi dañuy wax ne lu bax fa am xet dafa am xet go xamné ku bax ku nek xet gogu fu mu la xéñe rek da nga jëgouti ko dafa am fa xet ga nek da nga dem seeti lolu loolu ba tey jii nag mi ngi am donte nak ah mi ngi nëbbu mi ngi gën a nëbbu bu baax a baax a baax waaye am na ba tey kon nag soxna si ci cheikha tar tarxiya li bokkoon moom soxna may soxna may jëmmi boppam képp foo ko gisee rek sa xel boo dee nitu nit ku am ruuxaanee lu tuut tuut da nga am loo yëg da nga yëg ni nit ku sell ngi ni da nga yëg ni nit ku baax a ngi nii da nga yëg ni nit a ngi ni ku am safa koo xam ne dara loo xamante ne luy niru tilim la nekkul ci moom moom soxna si ci jëmm ji rek boo ko xoolee balaa wax ak yow boo egsee ci moom itam danga nga daal di yëg ni am na looy yëg yow ci sa bopp ci bu fekkee danga amoon stress sax daf koy dindi boo amoon loo doon xalaat lu ci bari de boo toogee moom rek jataay bi rek yow yi nekkoon ci yow ci ay xawaatir yu bari suñu borom day mel ni dafa ko dindi moom sa wecc man de loolu yëg naa ko xam naa ko itam ci sama diggante ak moom soxna si nit la woon koo xam ne mu rabbiya la woon ab yarkat gis ngeen ni moderniser murid yi gis ngeen tey yéen a ngi gis soxna si bi mu dikkee njëkk a def mooy ñi nga xam ne diine ñoru leen woon ak taalibe ñoru leen woon surtout surtout ci jigéen ñi nga xam ne yooyu yëpp ñoru leen woon ak tubaaba leen ñoroon ak intellectuel moo leen ñoroon gis ngeen soxna si ni mu def ba xëcc ñooñu ba jegele leen boppam ba tarbiye leen jàngal leen won leen yoon woo xam ne tey jii koo ci gis tey yow bu la waxut ne jàng naa tubaab doo ko mën a xam bu la waxut ne maa ngi ginee école sàngam doo ko mën xam wala nga dem fekk ko fa bi liggéey mooy tax nga xam ko waaye bu ngeen toogee ci yar bi ak ni mu leen moolee ak ni mu leen defaree da nga xamal sa bopp ne kii mi ngi génnee ci école soxna may kon ñi nga xam ne ñoo génnee ci école soxna may tey te nga xam ne dem nañ ba defaru surtout ci jigéen ñi góor ñi ñëpp la doon defar waaye rawatina nag jigéen ñi waaye rawatina femme intellectuelle yi ñi nga xam ne dañuy jàng ñooñu moom li mu defar ci ñoom macha allah kenn munu ko wax te ñooñu ñoo gën a naqaree defar ndax nit ku jàng tubaab surtout ngay jigéen ak tubaab yi fii jaar ak jigéen nga xam ne liñ bëgg a yàq lépp ci àdduna liñ bëgg a yàq lépp ci àdduna ci diine ci jigéen lañ koy jaar tubaab yi li nga xam ne moom lañ bëgg a sabooti ci lislaam mbaa ñu yàq ko ci lislaam lépp ñi ngi ko jaaree ci jigéen gis ngeen bu ngeen dee seetaan télévision yi xam li ma wax gis ngeen acteurs yi actrices yi affaire théâtre yi li ñuy def ak yooyu yëpp ay yëpp la yoo xamante ne dafa mel na lu ñu leen di xëcc ba nga xam ne ñoom ci seen bopp sax dootuñu ànd ak seen sabo gis ngeen yooyu yëpp day dem ba nga xam ne tey moo taxoon waykat ba ba muy wax daf ne al ummu madrasatun ida aadattaha aadatta shaaban tayiba al araq ne jigéen ñii de ñooy defari diine ji ñoo koy yàq tam bu yàqoo ñoo koy yàq bu defaroo ñoo ko defar bu ngeen leen préparé de defar leen ñu xam seen diine mbañum ruus xam lu ñu war a def kon population bu ko jëkk a def rek sa peuple ja ji raw na ndax fi ne kenn mënut a defar réew mi te jaaroo ci jigéen kenn mënu amul kenn koo xam ne muslih nga réformateur boo mën a doon ci àdduna dikk ne dama bëgg a defar Sénégal dama bëgg a defar beneen réew fab jigéen ñi teg fee ba noppi ne li ngay def dina sotti du sotti de gis ngeen politiciens yi ñoom xam nañu loolu ba moo tax ñoom jigéen ñi lañ gën a ittiwoo sax ci góor ñoo leen gën a ñor dëkk bu ñu dem ci jigéen ñi lañuy jëkk fa la ñuy wuti comité fa la wuti organisation fa la wuti lu ne parce que xam nañ ne ñoom ñooy xaayida shaabiyya bi nga xam ne boo leen xasee ba am rek dëkk bi dañ ko am loolu it ñii xeex ci wàllu diine war nañu koo xam war nañu am yeewute googu ñoom tam waaye nag am na ihmal bu am maanaam am na ñàkk a toppatoo gu am ci wet googu ba nga xamante ne yàqal nañu sax lu bare bare bare parce que tey boo dikkee ñu ne jàng ñu ne ah jàngam jigéen di amul solo xam-xamu jigéen di amul solo kon loolu de ah xaw luñ ci Cheikhul Xadim de yaakaar naa royu ñu ko ci itam ndax ko xool ku mel ni soxna may mii radiyallahu anhu li mu liggéey ci kaw suuf li mu transformé ci ay nit li mu defar ci ay nit waxuma leen bala ñuy dikk li mu defar rek ci wàllu ay dëkk ay leneen loolu matériel waaye li gën a am solo mooy defar nit Jamal Abdou Nasser ah moo doon moo nekkoon Égypte bi ñu defaree li ñuy tuddee saddul aali mooy seen barrage bu boobu nga xamne dafa yewé lool ci yoy jamono xeyna légui sax amna barrage yo xamne melna non wala mo gën ko bax et bi mu egsee dafa wax ba kàddu gu am solo daf ne bina'ul masani'i sahlu wa bina'ul jusuri sahlu walakin saab al asir binaaul insaan ne tabax ab usine buy defar lu yéeme ay auto lu ne loolu lu yomb la defar lu mel ni barrage bi lu yomb la lenn rek jafe ci àdduna tabax nit ndax lii lépp nit a ko tabax lii ngeen gis yëpp bañ di ko yéem jógewul ci asamaan si malaaka defaru ko doom aadama juñ defar képp moo defar loolu li taxaw ci kaw suuf lépp doomu aadama buñ defar moo ko def kon ittewoo defar nit gogu nga xamne mom la soxna ci doon itteewoo lolou moy itte ji lolou moy li nga xamantene ne liggéeykat yëpp ci côté bobu la wara jëm ndax lu mëna def gis nga bu ñu wutaloon xale yi xaalis bu dul jeex bayil leen fi ay milliards te xamaluñ leen yaruñ leen jàngaluñ leen wallahi dir bu gàtt lépp dañ ko yak ba nga xamne ne dara dutu ko dess dafa am ben way bu wax lu doy war barki dem mu metti ma ma gis ko waaye te te muy lu am waaxaa la boo xamante ne réalité la mu ne su ci dara mu ne li leen di woon xam ak ñàkk xam ñun fii ci Afrique tey bu ñu vidé woon africain yi yëpp yóbbu leen New York vidé américain yi yëpp andi leen Afrique la foofa di baax ak la muy rafet lépp bala ñu fa am ay at ñu yàq lépp ba mu gën a bon Afrique waaye bu ñu indee ñee fii danañ ko defar ba mu gën fuuf fañ bàyyi ko loolu muy lu doy waar waaye aw saaga la nag daa mel ni nag moom kooku def noonu ngañ dafa jàpp ne ñun sunu ñàkk xam egg na ci fekk lu defaru ñu mën koo geere sax mënuñu fekk lu defaru ba noppi ñu mën koo gérer sax jafe na waxuma laa nag defar dara kon soxna may ab defar ko la woon binaaul insaan moo ko fi taxawoon na nekk moom tabax nit defar ko rawatina jigéen ñi nag moom liggéey na ci laaj bu rëy aw na ci sas woo xam ne def na ko woo xam ne yàlla na ko yàlla fay bi ci des tam mooy nag woon jigéen ñi nag li nga xam ne moom la jigéen ñi damoo tey mooy yéen a ngi dégg fu toll ci àdduna si jigéen ñaa ngi soow liberté liberté dañ leen jox seen i àq droit de la femme nangam nangam fu ne ña nga cay soow ah féministes yi nga xamante ne léegi ñoom xeex lislaam moo leen tax a jóg nga xam ne ñoom seen xalaat yépp mooy fu ñu toll ne diine ji li dal jigéen ñi ñoo moo leen ko teg jigéen ñi lii jigéen ñi lii jigéen ñi te ñooñu ñoom xamuñ sax waxuma la diine waaye li nga xam ne sax moom lañ woote ñoom ci seen bopp xamuñu ñoom toroxal jigéen lañ bëgg ndax toroxal jigéen mooy lan fexe ba jigéen nekk am mannequin taxaw di jaay aw yaram ñu di ko gis waaw muy dem ak a yaram bépp nekk ci biti mu def yaramu ne doomu aadama yi di ko gis pour xaalis kooku bis bu demee ba mag wala mu dem ba màggat wala mu dem ba am ay sët wala mu dem ba am ay doom ñu di ko wane ne ko ah yéen di kii moo doonoon seen maam ah loolu de du neex a wax te dina ñaaw lool loolu nag lañuy def loo jigéen ñi léegi fexe it ba jigéen ñi ah, yem ak góor ñi nañ fexe ba jigéen yem ak góor loolu de la gaa yi woote waaye jigéen di bis bu yemee góor gi rek musiba dal jigéen bis bu demee ba moo góor ñu ne ñoom ñaar ñooyat musiba dana ko dal léegi koyo bu dem léegi ci réew tubaab yi yéen ñiy tukki xam ngeen ci dara jigéen yoo xam ne boo ko rombee suba teel ma nga yor ab benn ma nga yor ab oto ma nga yor ak saxaar xam nga ne jigéen jooju di du tala nekk ak taxoon itam liggéey mbuur sell boobu mu def ñi ngi nett li li lay gën a yéem ci moom mooy soxna si ni mën a jaxasoo ak doomu li gën a jafe ci kaw suuf nit ku nekk ci kaw ba noppi mën a wàccaat ci suuf falasifa yi yëpp li tax li ñuy wax kenn du ko mën a dégg bu ñuy jàngale seenam jàngalee ku am niveau bu kawe rek ko mën a xam lu ko waral mooy dañoo mënta wàcc ñoom yow da ngay yéeg fekk leen waaye ñoom mënuñoo wàcc fekk si ndax ñuy wax moom da ngay jàng ba sa niveau egg ci rek nga koo xam waaye ñoom mënuñoo wàcc ba tolloog yow loolu nag fi la yonent yi rawee ñëpp ab yonent day mën a dem ba aras ak kursi waaye day dellusiwaat ci suuf yi mën a toogaat ak xale bi gën a tuuti mën a toogaat ak nit ki gën a suufee ci société bi mën a wax ak moom foofu lu ab yonent wees wuute ak ñeneen ñi ci des soxna si jikko boobu nekkoon na ci moom dangay xool ñi mu daan jëflanteel di ay magam di tàmbalee ci sëñ Modou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadel cheikh Abdoul Ahad cheikh Abdoul Khadir cheikh Mouhamadou Mourtada ak ñeneen ñi ci des ñëpp xoolal rek soxna si digganteem ak ñoom ñooñu nga xamne du luñ ñuy netti du histoire dañ ko fekk du histoire bu lay netti lu nu fekke la lu nu dund la gis ko nim mu daan dundee ak ñom da na la xamal ni ki te ñom ñooñu dañ daan gis ak mom dañ daan jël ay xalaatam du jaagne daan togo mom rek waye dañ daan jël ay xalaatam ci lu bari nag yoo xamante ne ay xalaatam moom dañ ko daan jël di ko jëfandikoo itam kenn ku ci ne bu mën a jëflante ak yow ca la mu war a jëflante ak yow te du yàq la muy jëflante keneen te jël dara ku mës a dégg diggante soxna May kenn ñu ne am nañu dig man de mosuma koo dégg mosuma koo xam te diggante yi mu doon nekk yombutoon de doon doon diggante yu yomb ndax jaxasoo kilifa yombul kilifa gu am pouvoir jaxasoo ñëpp kooku di jaxasoog moom te du tee ngay jaxasoog ñeneen loolu du ñëpp la yàlla may loolu ndax boo farfarloo rek musiba boo amee koo faral bañ feeñ bañ xam ko rek du baax te soxna si nag yàlla dimbali na ko moom ba dafa nekkoon mu xaayida ba nga xam ne doo mën a xam ku mu àndal ak ku àndul te teewul amoon nay xarit amoon nay sopp ndax doomu aadama mënut a ñàkk xaritam mënut a ñàkk sopp waaye nag ci jëflante bi mënoo ko cee xam kon loolu itam ci xelam soxna may la moo xamante ne noonu la daan jëflante ak kilifa yi waaye boo dikkee ci suuf ñi nga xam ne ñoo gën a suufee doon dikk ci këram nga xam ne duñ fi wut si lu ndimbal ak di wut si ku leen dimbale ak ku si ku leen jox noona lay wàcce waatee boppam ba tolloowaat ak ñoom dimbale leen ba du tax mu wan leen kawe gi nga xam ne moom la leen ëppale wala mu wan leen daraja ji nga xamante ne moom la leen ëppale loolu itam dimension bu kawe la boo xam ne du ñëpp ko mën loolu soxna si ci jikkoom la bokkoon na it ci jikkoom ngeen gis ni muy jaxasoo kilifa ak diine gi ni lay jaxasoo kilifa ak adduna gi te loolu daawul yomb ab sëriñ mën a jaxasoo nitu adduna mën a jaxasoo nitu diine nga boole ñaar yëpp loolu tam yombutoon loolu soxna si ñi fi nekkoon te yoroon réew mi tàmbale ci Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci ñi fi nekkoon ñëpp soxna si mu ngi doon jaxasoo waaye jaxasoo gi lépp teewutoon mu xam boppam looloo ci gën a yéen seeyutoon ci ñoom ke fi ne jaxasoo nag Senghor lool te Senghor mu ngi bokk ci borom xel yi gën a rëy ci kaw suuf ci àdduna mu ngi bokk ci nit ñi nga xamante ne ku mu jaxasoon ku ne mën naa def ci yow lu bari parce dafa bari xam-xam dafa day mag bari lu mu xam ku mu jaxasoo rek dina am taasir bu mu def ci yow jeexit bu mu def ci yow ñu jaxasoo ñëpp ñëpp xam nañ li ma wax nii waaye dafa mel ni soxna si bi mu jaxasoog Senghor moom moo def ci Senghor mais de Senghor dewul ci moom moom dafa mel ni moom mooy jeex moo jeexital ci moom waaye sengoor joxutul jeexitalul ci moom parce que bu demee ba di wax yaa man de jaaxal na ma ndax fii mu toog bi wax ak man ñu bari dañuy dikk di fi toog ma may leen audience waaye buñ fi jigee yaar lañ fiy toog dama bëgg nga may ma xaalis wala dama bëgg nga defal ma nangam ju jëm si ci boppam nga xam ne intérêt boppam ñi ci ëpp ñi fi toog loolu lañ fi wax moom rek laa gis koo xam ne toog na fii di wax loo xam ne intérêt national la intérêt général dama bëgg sama tool ya dama bëgg sama dëkk ba na am ndox na am courant na am tali yooyu da lay wax waaye du ne mukk lu mu def ci lu mu lu mu denc wala lu mu def ci boppam nee na musul toog moom ba mu wax ko te loolu seere bu am solo la

kilifa diine dana dugg ci buur yóbbaale diineem ju mat sëkk buy génn genn wàll gi dana ko fa bàyyi buy génn genn wàll gi fa la koy bàyyi ñu ne lu tax ñu ne dana fa gis lu mu war a digle te du ko ñemee digle dana fa gis lu mu war a tere te du ko tere te loolu borom xam-xam wala nitu diine war na lu mu gis te dëppawut ak diine mu wax ca lu mu gis te dëppawut ak lislaam mu sañ ne nag lii nañ ko mu sañ caa digle mbaa mu sañ caa tere loolu mooy warteeku nitub diin gis ngeen Seexul Xadim radiyallahu anhu ci bi mu fi nekkee ak buur adduna yi gis ngeen am na masala mu xaw a doy moo xam ne dafa amoon ci jamonoom foqaaw yi di ci atte ba atte ba egsi ci moom mu am moom xalaat bu mu ci am muy xeexu Samba Sadio bi ngeen di dégg boo yi dañ ci jàppoon jaam yu bari biñ ci jàppee nag ñu di ci maye di ci jaay di ci joxe am nag ay caddo yoo xam ne dañoo jébbalu ci sëñ bi waaye am nañ ci alal jooje indaale sëñ bi ne leen nag alal jii ngeen fi indi dagal mu ne ko ah ci xeex ba la jóge woon mu ne ah xeex booba de lañ leen ci jox bu dee alal bu dee jaam bu dee moom daganul ci fiqhul islaam yi nangu ah wax jooju nag yëngal fuqahaa yi woon ci dëkk bi ci réew ndax ña fi nekkoon ci yooyu jamono ñoo ko magoon ay mag lañu woon yoo xam ne ñëpp doyloo woon nañ seen xam-xam bañ ko déggee nag ñu ne ah doomi Mor Anta Sali ji de def na wax na wax bu rëy ndax ñu ñi nga xam ne noo waajuram noo yem ñu atte ba noppi mu dindi atte loolu de buñ ko ci bàyyee boo léegi mën na noo indil ay jafe-jafe ah ñu aqd majlis maanaam jataay boo xam ne kër Lat Joor lañ ko woote ñu woo fuqahaaw yépp foofu faqih nekk ñu woo la ñu woo ko moom ne ko nag ñëwal fekk si te défendre sa li nga wax li nga wax dañoo bëgg nga toog défendre ko ci kanam fuqaha yi sëñ bi demul lu tax bañ ko waxee def ne li tax du dem du ragal ña lam lam cay wax mën na koo bind jox leen luñ ca xam ñu tontu waye mom ci jëm boppam du dem ñu ne ko lu tax mu dal ne al alim ala baabi sultan ah ka zubab ala al azirati la hawla wala quwwata wax joju gëna graw lam waxon fop li mu wax mo gëna graw lam waxon fuf waxoon fuuf ndax ñëwee su ko tekki sax al alim ala baabi sultan ka zubab ala al azirati waaw buur <laughs> boroom xam-xam bu taxaw ci buntu buur di ko xaar ne taxaw ci buntu bi rek ne moo ko weñ bu taxaw ci loole ñuy tudd des ko wax ne ñooyam weñ mu taxaw ci kaw sobe ñooyam ka gën a nekk faqi sunu maam jooju maam xaali ku dégg fekk la ku dégg wax la Lat Joor di mettit lu wax nun ko mettit loo daf ne ko ah, moom de man nii la teg weñ bi man mii di buur bi la lay wax ne maay weñ waa déet waaw waaw maam xaalis moo ne ko man mii la teg weñ la jot ne ah yow waroo wax dara di waaye li weñ wi tegu nag man mii la koy wax <laughs> waaw ku ci ne jël nga sa te sëñ bi moo leen ko wax loolu gis ngeen loo mel noonu li tax ñu di ko nettali moo di ragalutoon jaxasoo gi de waaye xam na ni ñii buur yooyu xamuñ woon dara ci diine li ñu lepp moy force doole rek loi amut dara amut dañuy not nit ñi di jëriñoo nit ñi képp mom nak du fa bu ko defé dem tok ci seen fauteuil sax wala mu tok ci seen siège japp na ne waru ko def waru ko def kon loolu itam day wane ne rek jaxasoo bur jafe waye soxna si melna ni mom jafé wu ko ndax ñi fi nekkoon chef d'état yépp jaxasoo nak ñom te kenn yóbbulu ko dara gis ngeen bi Senghor jaxasoog moom waaye gis ngeen bi Abdou Diouf jaxasoog moom di ñëw ci kër gi fii ñun ñëpp ñu di ko gis muy jaxasoog njabootam di jaxasoog ñëppam ndax xool leen rek tey benn ministre rek bu yoon jaxasoog kenn dem rek da di gis kooku léegi am changement yu bari ak commencé am ay ay soppiku yu bari waaye ab chef d'état di jaxasoog yow njabootam di jaxasoog yow te mënuñoo changé waxuma la yow waaye sa njabootu bopp sax mënuñu leen changé ñoom ñoo leen di fexe ba man leen soppi loolu itam capacité soxna si la kafaa bu mu am ak mën a jëflante ak nit ak koo mën a doon xam na mooy kan xam na ne moom doom Cheikh Ahmadou Bamba la wër sa taxaw ci kaw kenn di am lenn lu muy yëg waaw dafa xamoon bopp te loolu day ak am solo ak am solo xam sa bopp lu baax la lu am solo dana tax li ñuy tuddee complexe du ex ci yow parce que complexe waxtu woo xamee ne am na rek mooy li nga xamante ne ku bëgg ci yow jaral rek day jaar ci yow sàkk yàlla na ci yàlla musal bari na loo xam ne moo ko def ci jamono kon soxna si loolu la yàlla njëkk a dindi ci moom mooy fu mu toog rek jàpp na ne moo leen supérieur ci wàll bu nekk moo leen war a supérieur ci wàll bu nekk waaw te loolu jubluwu ci ak rëy waaye dafa xam mooy kan xam na ne moom doomu Cheikh Ahmadou Bamba la kuy doomu Cheikh Ahmadou Bamba nag koo mën a taxawal ci àdduna da war a jàpp ne kii yaa ko war a woon yoon waaye moom warul la woon yoon foofu la soxna soxna si dimension bari na ay taxawaayam bari na dama leen doon ubbil rek waaye nag man dama xër ci soxna si moom ëpp bu ma tàmbalee ci moom du ma xam fu muy yem wax dëgg yàlla ndax bis bi mën naa jàpp ne mi ngi bokk ci bis yi gën a am maanaa ci man man parce que soxna si wax dëgg yàlla moo ci daan jox ndigal ba bu ma fi egsee damay jàpp ne man sama bis la kon maa ngi sant bu baax sëriñ Modou Mahfouz di ko ñaanal yàlla ak soxna Bali ak sëñ Cheikh Abdou sunu xarit ci liggéey bii ñuy liggéeyal seen waajur wi ñu xam ne àdduna sépp a ngi leen teg bët gis nañu li ñuy def gis nañu fii yëf yi tolloon ak dimension bi ngeen ko yóbbu tey yóbbu ngeen bis bi ba mu nekk bisu boo xam ne dimension culturelle bi mu am léegi ci biir Sénégal neexut am ndax bis yi ngeen di amal bis bu nekk ñu indi benn tomb waxtaan ci bu ëllëgee ñu waxtaan ci beneen loolu de loolu la soxna si bëggoon ndax moom fo danoon doon nit ñi danoon tabax nit ñi kon tey jii bu ngeen demee ba transformer bisam bii mu doon bisu xam-xam bisu culture bis boo xamante ne bu dajee boroom xam-xam yépp di dajee kenn ku ne la nga xam nga di ko indi dugal ci sa wàll ma ne loolu de wóor na ma ne soxna si xolam sedd na te wóor na ma itam am ngeen gën a moom am ngeen ngërëmal waa kër Cheikhul Khadim gépp waaye am ngeen ngërëmal ñi nga xam ne ñooy ñu doon fekk bis bii di ànd ak moom ci loolu ba bisu tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla dëgëral leen gën leen koo manal ba ngeen yóbbu bis bi fa nga xam ne fa la seen yéen egg ci daraje Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci jëlu manga si ne may noo borom may noonatun may اللهم مؤمنة مسلمة